li sababu woote bi nag mooy jeune première tranche ñoo mànkoo woon ànd seeg seen yaay ak seen papa yi ñëpp muy commune muy commune bu Sud ñëpp ñu dëkk ci commune bi ci benn mbir bu ñu yitteel ñun ñëpp mbir mi nag dafa nekk loo xam ne nii bu ñu xoolee ñu suñu gox suñu gox ñun ñëpp muy première tranche unité 1 ba unité 6 cité Fadia Gendaba amoo Faye Sall cité euh, douane cité douane ñun ñëpp ñu nekk ci ay tolof tolof yoo xam ne nii kenn mënuñu si génnee lu dul ñun suñu bopp ndax dañoo yàgg ay politiciens dañoo yàgg ñëw suñu gox di ñu dig di ñu nax ñu leen di gañeel ndax ñu ñëpp xam nañ képp ku am ndam première tranche yaay dirigé commune Golf Sud ci tànk yooyu képp lañ jóg bañ ku ñu naxaat moo waral ñun jeune première tranche yëpp ñu booloo dem waxtaan ak képp kuy délégué de quartier képp kuy chef de quartier di imam dëkk ci gox bi ñun ñëpp ñoom ñëpp ñu jox ñu seen seen aval nañu carrément yéen yéene suñu doom te ñun ànd nañ ak yéen lépp loo leen sumb ñun dinañ ci ànd ak yéen te ñu nangul ñu tamit ñun fuñ taxaw taxawuñ fenn fu dul yëkkati suñu gox ndax ñun ñëpp xam nañu première tranche dafa dellu ginnaaw boo xoolee waxuma Ndakaaru sax mais mën naa ne Sénégal première tranche bu Parcelles Assainies bokk commune Golf Sud dafa bokk ci secteur yi gën a reculé ci Sénégal ndax ñun ñëpp dañ fi nekk ay jeunes jubboo fii yaroo fi màggee fi mairie bi di def loo xam ne nii si dëkk bi boolewuñu si am ay kuréel yu bëri yu nekk fii yoo xam ne jug nañ pour xeex loolu noonu pour jëlaat inter euh, ba inter plus précisément rattaché ko ci fi mu bokkoon ci parcelle commune des parcelles ville de Dakar mais ñu si bëri xam nañ ne loolu mënul nekk dañuy jéem a ñun ñëpp waxtaan jéem a fexe nu ñu ins duggee ci biir mairie Golf Sud bokk ci fi ñuy décider loolu moo waraloon ñun jeune première tranche dajaloo créer benn cercle tuddee ko le cercle des généraux tànn nag seen candidat idéal seen candidat boo xam ne moom la yaakaar ci mairie bi muy monsieur Lat Diop moom lañ bëggoon investir tey ci dimanche vingt cinq juillet bi fii ci terrain Santos wante mënul woon am ndax dafa am xew-xew bu am Sénégal muy benn tawa comme ñi jël kàddu bu njëkk liñ liñ wax rek di ñaan yàlla feebar bi jóge fi feebar boobu nag moo waral euh, président inter euh, président ne bu ñu ñu moytu ndaje yi Euh, moytu fépp foo xam ne mbooloo dañ fay dajaloo daal looloo waral ñu annulé ko ndax ñun comme ni ko sama waa ji di jël kàddu waxee rek bëgguñu ñëpp sol daal ñun ñuy def tànku neen ndax ñu dëgg la nag sonn nañ waaye kenn yaruñu si loolu dinañ tegu ci réew mi li mu bëgg ñu doxee ànd ak njiitu réew mi ci li mu bëgg doxee tey fàttali tamit njiitu réew mi ni ko ñun askanu Golf Sud ñun askanu première tranche bi gën a sonn ci Golf Sud ñun ñi nga xam ne ñooy doolay poids bi électoral mairie Golf Sud ñun ñoo jug waxtaan bëgguñu benn politicien di ñëw suñu secteur di ñu wala di ñu naan dinaa dinaa fi def lii ñun waxtaan nañ jàpp nañ ni président Lat mooy doon le kan mooy doon suñu maire si locale yii di ñëw di wax nag tëbuñu tëb tànn décision boobu ne ñun président Lat Diop la ñuy samp mu nekk suñu candidat ndax président Lat Diop dafa nekk si bi jàng nekk doomu lu ëpp commune ci biir géejawaay waaye bu demee ba moom mu déggal ndaw ñi ko topp déggal mag yi ko toog muy ñi ëpp ci ñi ko topp dañoo dëkk commune de Golf Sud ñooñu ñëpp ne ko mu ñëw bàyyi lépp lu mu jàppoon ñëw ñu jox ko mairie bi mu doxalal ñu ko ndax moom nekkul moom moo taxaw ne daa bëgg nekk maire mais ñun ndaw ñi ñun ay ñu ko sopp nit ñi bëgg a màgg mel ni moom dëkk ci gox bi ñun kat ñoo am yéene ni suñu gox kenn duñu ko defaraat lu dul ku ñu fiy teg te ñun gëm nañ ñi ñun président Lat Diop moo ñuy defaral suñu gox ci loolu nag lan taxaw ñun ndaw première tranche dañuy tànn candidat tànn nañ ko nag muy président Lat Diop looloo waraloon daje bi ñu bëggoon ko def ci terrain Santos waaw mais corona bi moo tax mënu fa woon mënuñu ko fa woon def looloo waral ñu tenir nag ndaje bii nii woo journaliste yi ngir ñu ñëw bañ a neenal bis bi ñu xamal képp ku dëkk première tranche niñ ko defee woon dem si délégué yeeg imaam yi ñëpp di leen fàttali ni première tranche mbooloo bi daje nañ te mbooloo bi tànn nañ président Lat président Lat Diop mooy candidat au premier tranche élection locale yi ñu jëm. defe naa Baye Talla wax na lépp wax na ko ci olof wax na ko ci français bi ñun nag dañu nekk première tranche dëkk fii ñu koy defee muy unité 4 juddoo fi màggee fi defee fi lépp demee fi daara ñëwaat fekk fi lépp nag suñu gox bi ñu takk cercle des généraux de Lat Diop 1 ba 6 Cité Faye Sall Nations Unies Cité Douane ACSS fépp fu jeune nekk ñu dajale la mbokk ci cercle bi xool dëgg-dëgg lan mooy problème mu gox bi ñu bokk waxtaane ko dajale mooy moo waral cercle bi ñetti point yi ñu fi waxtaane nag yépp daanaka bàyyi taala xuus na ci lii tey jii nii terrain Santos la waroon a doon ñu war a woo Lat mu ñëw ñu jàkkaarloo ak moom un euh, ba six tey jii ñu xool lan mooy problème bi ñu wax ko ko yàlla jaam ak pexem yàlla ak dogalam mbas mi wàcc ci réew mi feebar bi gën bari ñuy ñaan nañ digle li docteur wax ñu sàmmante ko beneen bi ñoo ngi gis ni yéen jeunesse bi suñu yaay yi suñu suñu maam yi suñu yëpp xool leen nañ takku nañ takku xool bu baax a baax a baax te xam ne dañoo jëm ci élection yoo xam ni ah wóoluwuñ ci kenn ku dul président Lat Diop lu tax ñu wóolu ko mooy moom avant muy nekk dara mu yore benn ndomba tànk day jëf jëf jëfinu lu maire deful wala keneen wala keneen moo waral tey ji ñi ñu takk ñu ko ñëwal ñu jox la maire golfu nga liggéey si kàttanu yàlla suñu borom 2022 janvier 2022 buñ ko ko joxee ñëwaat fi 2024 di ngeen xam ni dina fi def dara wala du fi def dara nit ku bëgg waaw góor la Lat Diop bëggul maire bi ñun jeunesse bi ñun suñu yaay yi ñun suñu ñun ñoo ko bëgg a jox maire bi moo waral cercle bi takku ni Lat Diop rien ku dul Lat Diop ah ku dul Lat Diop de du doon sama gars yi affaire bi def leen ko seen yëfi bopp ñun bu tawee ñun ñooy jugante suñu biir dem kër yi nga xam ne di ngàccante wala ñuy def leneen hôpital yi moo ngi nii jël 500 permis maye ko hmm. jël 1500 emplois yoo xam ne da ko bëgg a def diggante géejawaay ay taxi de numérique ay taxi de kalandoo yu jógee yii di déparé géejawaay dem kaas ba ñii di déparé géejawaay dem Kër Massar kooku yërëgul dara yërëgul dara dem dalal jàmm def fa lam fa war a def lépp comme moom tey jii nii nii nii nii tey bu laajee war nañ koo mën a jox waaye nag duñ la jox waxuñu kenn duñ la jox doo rënk sa xaalis ba ko fa ci banque bi ba ba élection yi des 4 mois nga bëgg ñëw bul yuus xelu sénégalais yi buñ leen joxee lekk leen seen xaalis la waaye xam ngeen ki leen ëppal njariñ xam ngeen ki war a mën a defar gox bi loolu dama bëgg ngeen am xëpp bu baax a baax a baax jamono jii nag ñëpp ñoo ngi tëdd seen ndëng ndënd ndënd ndënd naan naan kenn ku ne man la waaye ñun ñun ñii ñooy wax kumu te ñun ñoo ni Lat Diop yow ah waaw point bi daal dafa bàyyi taala wax na lépp di santaat ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm responsable yi fi teew yëpp di gërëm jeunesse bi teew fii nii yëpp di gërëm suñu yaay di gërëm suñu maam yi di gërëm suñu lépp gis nañ seeni ñaan bés bi nag muy investir Lat Diop bi bàyyiwuñ ko bu mbas mi wàññeekoo ba teguwaat dinañ ko woote fii ci terrain cosaan woo ci chef de quartier yi bàjjan gox yi suñu yaay suñu maam président ay yi ñëpp woo leen ci pour ñu ñëw ñu investir Lat Diop jàkkaarloo ak moom yàlla na fi mbas. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di ziar yi ñëpp nekk seen tur ak seen sant di leen jox seen wàccuwaay baax a baax a baax di wax ni lii daanaka bisu tay bii nii ñu ngi ko waroon def meeting pour investir la cercle des généraux de Lat mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. ci ñaan yàlla mbas mi ñu fi duggee si bisimilah rahmaani rahim yàlla fi génn si alhamdulilah rabbil alamin di wax ne ñun dañ fay nekk dëkk fii ñoo am trop lu ñu métti si biir commune bii nii wax dëgg fa yàlla kon tey jii bu demee taxaw gis laa jóg dem waxtaan ak moom ne ko ñun dañoo bëgg ñëw fii samp la nga jëlal ñu mairie golf ba léegi taxawul ni damaa bëgg mairie golf ñun ñoo taxaw bëgg koo jox mairie golf parce que ñun fii bañ nekkee xale ba léegi amuñu fi gisuñu fi benn changement li fi amoon rek moo fi amaan te foo nekk ay 15 ans dëkk fa 20 ans jàngee fi defee fi lépp ñun xam ne loo xamante ni moo fi war koo xamante ni du mairie du dara ambulance yi ngi si permis yi mi ngi si hôpital yi mi ngi si tabax si bi passé gis ngeen li def ci réew mi kon lenn kese lañ ko toppee li gars naan le don de l'homme à l'homme qui le mérite est une joie à vivre mm-hmm. tax ñuy sonn ci moom affaire gox nag ni ko ñëpp waxee affaire de koñ la ñun ñoo moom suñu kàrante jarul ñuy xeex jarul ñuy xuloo jarul ñuy def dara kuñ si jox xaalis bu la neexee nga téye waaye boo duggee ci bureau bi sa kàrante boo ci duggee nañ jël ñu ànd ak laaj boobu te xam ne mooy apporter commune bi njëriñ. Ah laajul mairie bi laajul mairie bi laajul mairie bi pour ay potente wala ay lignes yi non dafa jël dafa lii da ko bëgg pour dimbaleel ñu te ñu ñii di ko sàkku yéen ñu woone di ko sàkku pour nga jàppale président Lat Diop mu jël maire Ngor. buñ demoon ba nga xamante ni gisuñu ko mun nañoo apporter suñu commune dara dañ ko fee bàyyi dem xooli leneen taxaw na fu nekk di ko wax. quatre mois moo si des mairie lu koy gagné mooy proximité kër par kër gox par gox ñu ngi ñaan yàlla yàlla na fi mbas mi jógee ñu tàmbali ko duggaat ci kër yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di am contentement trop si wuy si bi ngeen ñu wuy si yàlla na ko yàlla mottali mbëbët mbëbëtam ba mu jël mairie bi ak leneen lu dul leneen. ngi tudd Waly Sène dëkk ñu 4 waaw daanaka sama gars yi wax na wax nañ lépp mais man mënu ma cee ñàkk bañ a sànni parce que dama fay dëkk juddoo fi yaroo fi xam fi lu bari lu bari metti ma fi tamit ba tax lii ñuy bëgg ñuy dëgg man man dafa nekk sama combat man personnellement parce que dama fi gis loo xamante nii neexuma tey ji damay laal ci trois points mooy école bi nga xamante ni man fa laa jàngee muy PAZ tey jii man sama doom condition yi école bi nekkee man sama doom mënu faa jàngee du ma ko fa dugal ndax ni mu nekkee suñu poste de sante bii ni mu mel ñëpp gis nañ ko tey ji ku feebar beneen poste de santé ngay xalaat wala beneen hôpital bu mu bii te pourtant kenn gënuñoo placé hôpital wala poste de santé abu kon loolu noonu yëpp metti ñu ñun lii dafa doon suñu combat te yaakaaruñ ci kenn ku dul président ñëw jëlal ñu mairie liggéeyal ñu suñu gox bii lépp lu ñu fi metti woon ñun moom la ci yaakaar mu dindi ñu ko fi ndaxte gis nañ li muy def ci Sénégal du ma ne Géejawaay kase du ma ne Golf Sud kase li muy def ci Sénégal man dama koo gis ba tax na mairie bii yaakaaruñ ci kenn ku dul Lat Diop tey tamit may wax dara ñun kenn mënuñoo nax kenn mënuñoo nax li ñuy xaar leen rek mooy élection jot élection jot ba kenn jóge fee naan daf ñuy ñëw fii naan daf ñuy jéem nax ak dugg na fii génn ñun loolu rek la xaar lii suñ combat la de te daf ñoo ñor hmm. ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo koo xamante ne daf ñu koy yàqal duñ nangu kenn koo xamante ne day jóge fee ñëw ne day nax jeunesse bee nag jeunesse bi ak nangam ak nangam duñ ko nangu ñun nag takku nañ ba dëgër taxaw élection yi bu nekkoon suba dañuy futteeku jàmmaarloo képp koo xamante ni dafa taxaw ko jàmmaarloo la jóg hmm. loolu moom sama bat ci kaw a kaw te duñ ci ginnaaw benn yoon bu ci dellu ginnaaw benn yoon man daal loolu laa amoon lu ma ciy sànni di gërëm mbooloo mi fi teew yépp kenn ku si nekk sa tur ak leen wax ne ñoo leen ñu jàppoo ñu àndoo mm. ñu gën a takku liggéey te xam ne li ñuy def nii suñu gox la mm. du affaire de président du affaire de présidentielle lii mairie affaire de koñ la affaire de gox la lii affaire de gox la ngay xool ki nga xamante ni mooy intérêt gox bi nga teg ko ci sa gox waaw dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko ñun daal loolu la ñuy woote ñëpp mm.